kon mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain suñu borom dogaloon na ñu yegsi woon ci buntu zakat ci suñu téere bi ñuy topp di minhajul muslim bu cheikh aboubacar aljazairi rahimahullah di tolloon ci li ñuy tuddee masaarifu zaka masaarifu zaka mooy almadatu rabia ci page deux cent quarante trois bu dee ñu yor mool bu bees bi mi ngi noonu fi masarif zaka almadatu rabia mi ngi noonu moom lañu war a jël nii tey kon bu dee mbokk yi bokk nañ ko gis day wax ni masarifu zakati samaniya fañ war a jëmale zakat day juróom ñetti bunt la zakaraha allahu azza wa jalla fi kitaabi yàlla moo ko tudd ci téeréem mooy fi muy waxe ne innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakin lii di zakat day dana ñeel ña nga xam ne dañoo ñàkk doon ay miskin wal amilina alayha ak ña nga xam ne dañuy liggéey ci zakat boobee wal muallafati qulubuhum ak ña nga xam ne dañuy miiñal seen xol lislaam wa fi riqaab ak ña nga xam ne dañoo nekk ci njaam ci bëgg a gore wal gaarimin ak ña nga xam ne dañoo nekk ci ay bor yu leen lottal wa fi sabilillah ak ña nga xam ne dañoo nekk ci yoonu yàlla wabni sabil ak ñi nga xam ne dañoo tumuranke nekk ci dëkk bi faridatan min allah lii de farata la boo xam ne yàlla ko tëral wallahu alimun hakim yàlla mooy aji xam yàlla mooy aji xereñe ala kulli xaal mbokk jullit suñu borom yàlla moo ñu gën a xam doomu aadama dafa bëgg alal torop sa ba démb rek ci mujj ay kaa ñoo xam ne nii ay mbokki neen lañu waaye la nga xam ne seen waajur bàyyi na ko ci alal xëccoo ba tax na mu teqale leen mi ngi noonu tey jii moo tax suñu boroom lépp luy wàjju alal noo ko détaillal boppam boo demee miraas yàllaa ko détaillal boppam kii lii la war a am kii lii la war a am zakat bi it yàlla moo ne ñii ñoo ko yeyoo ndax xam nañu fu ñuy séddalee alal doomu aadama bi su bàyyi woon ay millions it dana bëgg ñu jox suñu borom def loolu loolu nag ngir leeral ko moo tax mu ne wa idaahu hadihi almasarifu samaniya buñ leen leeralal juróom-ñetti bunt yooyu naka la tëddee ña ca jiitu mooy alfuqaraau ñi nga xam ne dañoo ñàkk ñu tudde leen faqir alfaqir man lam yakun ladayhi min almaal maa yasudd xaajatahu wa xaajata man yaul faqir buñ koy wax mooy koo xam ne yorul ci alal loo xam ni dana mën a matal aajoom ak aajoy ñi nga xam ne da leen a njaboote min taamin wa sharaab ci seen lekk ak seen naan wa malbasin wa maskan ak la ñuy sol ak la ñuy dëkke wa in malaka nisaaban min al maal doonte ne sax moom amoon na benn cër ci alal ca mbokk dañuy am teqale ci faqiir ak ci miskin dana ñëw ci kanam waaye ñi yàlla jëkk a jox cër ci zakat mooy faqir faqir mooy ki nga xam ne moom ku xam mbiram da nga xam ne kat kii amul ab liggéey boo xam ne lam ciy jële mën na koo yor ci lekkam ak naanam ak dëkkuwaayam donte ne nag moom demul di ñaan kenn moo tax suñu borom li ñuy wax ca baqara taarifuhum bi simahum laa yasaluuna naasa ilhaqa da nga leen xam ci seen seen mandarga ya donte ni du ñu dem di topp kenn la ci laaj bu koy sonal kooku nag mën na nekk un salarié mën na nekk ab boutiquier mën na nekk kuy liggéey liggéey bu nekk waaye képp koo xam ne la ko yàlla di wërsëgal dañuy gis ne munu caa faj la nga xam ne mooy aajooy dëkkuwaayam ak lekkam ku mel noonu daga nañu yokk zakat place bi mooy jógee nii léegi ak mbokk yi ma toogaloon yi nga problème ASP yi nga xam ne nii dañuy recruter ñu dimbali policiers yi cinquante mille la ñuy fayee ko par mois cinquante mille par mois gis ngeen loolu yi koo xam ne bu ci bëggoon fay néegub liaas bëgg caa añ bëgg caa reer bëgg caa dundal njabootam ndax mën naa nekk déedéet kon ASP boobu ku ko jox zakar jox nga ko ko yeeyoo loolu ci misaal la rek ñaareel bi mooy almiskin almiskin qad yakunu axafu faqran min alfaqir aw ashad mu ne miskin day mën na gën a tar ñàkk faqi faqir mën na ko sax tane gayra an xukmahuma waxid fi kulli shay doonte ne nag seen atte day yemoo ci lu mën a doon waqad arafa rasul sallallahu alayhi wa sallam miskin fi baadi ahadisihi mu ne yonent bi ràññet la ne diggante faqir ak miskin ci lenn ci xadisam mu ne laysa almiskin allazi yatuufu ala annas tarudduhu luqma wa luqmataan yonent bi ne aji ñàkk day ku ñu tuddi miskin dëgg doo koy wër ci nit ñi fu mu dem buñ ko joxoon ñaaw gëb ceeb sax mu jël dem fee ñu jox ko ñaari ñàkk wal miskin mi ngi noonu mu ne wa wa tamratu wa tamrataan nekkul koo xam ne bu ñu ko joxoon tàndarma wala ñaari tàndarma sax mu jël dem mu ne walakin al miskin mu ne dëgg-dëgg kay miskin allazi laa yajidu ghinan yughnihi mooy koo xam ne amul woom le gu ko mën a fegal aajoom wala yuftanu lahu fa fa yutasaddaqu alayhi ca kenn du ko bàyyi xel bay di ko du nekk nekku ci fitna bay wër di sakku pour ñuy di ko di ko jox ay sarax wala yaqumu fa yasalu nas ca du jóg mukk di dem di laaj nit ñi kon ci gàttal bu doon wax ci lislaam dañ naan miskin mooy ki ñàkk biir miskin yooyu nag dafa am ñu ci tuddee fuqara waa ñoom ñëpp miskin lañu amma miskin ordinaire mooy ki nga xam ne amul waaye nag mi ngi dem di laaj mi ngi dem di laaj di ñaan nit ñi mi ngi noonu jox nañ ko mu joxuñu ko moom day laaj donte ne nag amul ña koy joxit joxe nañ fañ war a jox waaye mu ne saqiir nag mooy ki nga xam ne moom yàlla xaj na ko ñaari mbir moom amul lu ko doy ci rus naa wër di ñaan war naa rus naa wër di dem di sarxu wala muy ñaan lii kon moom mooy différence faqiir ak miskin ñetteel bi mooy aamiluuna alayha ña nga xam ne dañuy liggéey ci zakat boobee ca tey jii bu doon te ne ne réew bi dafa tëddoon ci lislaam mooy inspecteur imposé demande yeeg contrôleur yeeg ñoom ñëpp dañ leen di tuddee ñuy liggéey ci zakat donte ne seen impôt boobu ak zakat safa noonu mu ne al aamilu ala zaka huwa al jaabi laha aw saa'i li jam'iha mooy képp koo xam ne yaa ngay dem di indi zakat ya wala di dox di wër di ko dajale awil qiyamu mi ngi noonu alayha aw alqayimu alayha aw alkaatib laha fi diwaan wala ña nga xam ne ñooy taxaw di ko saytu ak ña nga xamee ne nii ñoo koy bind ci kayit yi fa yu'ta minha ujrata amalatihi walaw kaana ganiyan ñu mel noonu dañ leen war a jox seen salaire même bu doon woomle nañu waaye maadaama am na seen temps bu ñu jël di dajale zakat yi di ko bind di ko contrôler dañ leen war a jox seen salaire te loolu it bari na ci ay fonds zakat yi nga xam ne am na ci masalan lu mel ne fonds sénégalais de la zakat ak yeneen ak yeneen am na fa ñoo xam ne dañ leen a embauché ñoom ñu am salaire fixe boo xamee ni ni dañ leen koy jox ndax ñoom ñooy dajale xaalis yi ñoo koy taxawu ñooy récupérer dossier ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ila axir loolee kon mi ngi noonu mu ne kon li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la taxillu sadaqatun li ganiyin illa li xamsa daganul nit ki di lekk sarax wala zakat lu dul juróomi nit ñi li amilin alayha koo xam ne day liggéey ca zakat ba ñu war ko taa jox loo xam ne day méngoog liggéeyam boobee aw rajulun ishtaraha bi maali wala koo xam ne da koo jënd waa ji dem ne fee ñu jox ko saaku dugub zakat yow nga ñëw jënd ko ci moom dagan na nga lekk ko mu dem fee ñu jox ko fa ab gàtt zakat dagan na nga jënd ko lekk ko aw xaarim wala koo xam ne nii ay bor da koo ñett doonte ni bor yooyu tamit dañ koy teqale dafa am bor yoo xam ne nii boru aajo la ak bor yoo xam ne boru luxe la tey boo demoon dañ naan la dëkk bi na Amérique nga xam ne mooy dëkk bi ëpp richesse ci àdduna bi la ci ëpp des Américains ci crédit la ñuy dund ay gis loo bëgg jël jëm kër oto jël ba cadre yu ndaw ya fa nekk yépp li ñu war a fayeeku dix ans ci kanam yépp lekk nañ ko loolu taxul ñuy wax ay bor bor mooy loo xam ne mënta ñàkk ci daruriya ci waa ji dundam lekkam faju gam war a faju nga xam ne loolu ba mu koy jël caaxaan taxut te it dem na ba mbir yi ñett na ko ñooñe ñooy ña nga xam ne ñoo la ñuy wax ca bor yooyee waaye du lenn loo xam ne dafay jëm ci surplus ci ay luxe gannaaw ba aw xaasin fi sabilillah mooy ña nga xamee ni nii dañuy xeex ci yoonu yàlla te bu doon loolu mooy li ñu tuddee militaire yi l'islam ñoom it dañ leen war a fay ci zakat boobee aw miskin tusaddiqa alayhi minha fa ahda minha li gani wala boog miskin boo xam ne moom dañ ko jox zakat mu dajee koo xam ne yeyowul zakat mu am lum ko ca may su boobaa da ngay gis ni dagan na mu lekk ko dagan na mu lekk ko muy fàttali benn hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci kër gi na ñoom yaay Aïcha ah ndax lu ñu mën a ndékkee am na fi ñu ne ko ah dara fa naan ñu fi de mu ne waaw romb ma kaddir gi nii di bax mel ne ndawal la ci nekk ñu ne waaw loolu barira moom lañ may ndawal moo koy togg noonu pour moom ndax dañ ko koo sarax te sarax alu muhammad duñ ko lekk mu ne ah moo ne moom de buñ ci mayoo nit loolee moom dana dagat ci ñun dana nekk sarax ci moom nekk may ci ñun loolee kon képp koo xam ne yeyowul zakat ka nga xam ne dañ ko koo jox mu wëlbati ko moom may la ko loolee dana dagal ci yow wane ne mbokk kër kookee rasulullah wa be wuta naag ñi sol mbubbam ne ñoom ñooy dund gannaawam kat-kat yi gën a kawe yaa ko moom kër yi gën a rafet yaa ko moom tool yi gën a rëy yaa ko moom ay milliards ca banque ba sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi noonu kon mbokk ñooñu mooy ñeenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñeenteel bi mooy muallafatu qulubuhum nañuy miinal seen xol ci lislaam wal muallif qalbahu rajulun muslim yakunu daif al islam wa takunu lahu al kalima nafida fi qawmi zakat boobu daañ ca jox benn kilifa ak jullit boo xam ne xam nañ lislaam daal dëgërul ci xolam waaye mbooloo moom jiite lu mu wax ñu def ko ku mel noonu ñu jox ko ci zakka loo xam ne day tax mu fonk diine ci ba du digle lu dul lu neex yàlla loolee mënees na ko def ñaareel bi mooy en moo tax mu ne fa yu'ta min zakat dañ ko jox ci zakat bi taalifan li qalbihi ngir miinal xolom wa jam'an lahu ala lislaam ak it boole ko ngir mu nekk ñeel lislaam rajaa an ya umma nafahu aw yakuffa sharruhu ngir loolee ñu koy jox ba mu am dëgër laay dana tax ba lépp lu muy waxati wala mu koy jëfiti doon luy jëriñ lislaam wala fi ñu ne ki ëmb sa sànqal ëmb sa kersa wala sax mu fegal ñu ayam ba nga xam ne dootul lor la nga xam ne mooy julit ñi aw li rajulin kaafir wala boog góorug yéeféer goo xam ne dañ koy jox zakat taaman fi imaanihi aw imaani qawmihi koo xam ne yéeféer la mais jàpp nañ ne kii day ku ko joxoon alal loolee mën na ko puusi mu dugg ci lislaam ndax ragal ne bu duggoon ci lislaam lii muy suturloo dana ko ñàkk kookee ñu jox ko ci loo xam ne dana tax mu am fit bu mën a changer diini loolee da ngay gis ne lu ñu mën a nangu la ci lislaam wala sax mën na indaala la nga xam ne mooy xeetam fa yu'ta min az-zakat targhiban lahum fi al-islam wa tahbiban lahum fihi ñooñu ñu jox leen zakat ngir xemmem loo leen islam bëgg loo leen ko allahuma loolu mooy la nga xamee ne nii boroom xam-xam yu bari wax nañ ko mu ne nag wa qad yataadda hadha sahma loolee ñuy miinal seen xol ci lislaam dana mën a jiggi ñooñu ila kulli ma min sha'nihi an yuhaqqiqa maslahatan lil islam wal muslimin ba yegg ci képp koo xam ne wóor nañ ne buñ ko joxee xaalisub lislaam dana am njëriñ bu mën a indil julit ñi min awjahi diayati ka ba'di rijali suhuf wa ahli al aqlam te ña nga xamee ne nii dañoo am kaddu gu woote lu mel ne rek lenn ci journaliste yi ak ña nga xam ne nii mi ngi noonu ñoom ñooy nekk di bind di génne ay livre ñépp ñoo xam ne nii jàpp nañ ne bu ñu leen joxoon zakka daañ wax loo xam ne nii lislaam la su boobaa dagan nañu jox leen zakkaat boobee amma bu dee juróomeelu bunt bi mooy fi riqaab la nga xam ne mooy ñi nekk ci ak njaam والمراد من هذا المصرف هو أن يكون المسلم رقيقا من موي جبل واي بوبي موي جوليت بو خامني دا نيك اب جام فيشترى من الزكاة ويؤتق في سبيل الله كمل نوني way ñu jënd ko goreel ko te yàlla tax أو المسلم يكون مكاتبا فيؤتى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته ليصبح حرا بعد ذلك ولا جام بو خامني دا بندنتي اك سانغام نيكو دما بغا غوري سانغ بي نيكو جوخ ما نانغام تا غوري تا لولي يالا موني كيب كو ام جام بو باخ mu ñëw ne daa bëgg a bindanteeg yéen pour gore bindante leen ak moom te dimbali leen ci alal ji mi ngi noonu lazina yabtaxuuna alkitaaba mimma malakat aymanukum fa katibuhum wa aatuhum min malillahi lazi aataakum na ngeen dimbalante ak ñoom kon ñooñu mën nañ leen a jox ci sa ci zakkaat yi non amma li muy wax alxaarimuun الغارم هو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله borom bor ya comme nañ ko waxe woon mooy ki nga xam ne gàddu nay bor te ba mu koy gàddu lenn amute cig mooy yàlla wa yataazzaru alayhi tasdidahu fa yu'ta min azakat ma yasudd bihi dayna dem na nag ba lott ne moom mënatul fay bor bi su boobaa daañ ko jox ci zakka lu ko mën a fayal borom ca fekk ne mooy lott na ca ñu ngi noonu bu dee ne am ne pexe bu mu ko fayee loolee du ca bokk di xawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa taxillu mas masala illa li salaasa yenent bi nee na day dem di ñaan nit ñi ñett ñi ñoo ko war a def mooy di zi faqrin mudqiq koo xam ne yegg na ca ñàkk ñàkk goo xam ne tar na ca moom lool aw li zur zi xurmin mufdi wala borom bor boo xam ne nii dem na ba lottloo ko aw li zi dammin muji wala koo xam ni dafa tuuroon deret loolee nekk loo xam ni ak lor la gu ko topp nga xam ngeen islam boo daggoon baaraamu nit rek fukki gileem moo la war mi ngi noonu boo yàqee ba tam boo ko reyee lépp dafa am loo xam ne lu ñu lay topp su dee nag jurit bi ba mu koy def tayu ko tey boo reyoon nit fekk tayoo ko rek téeméeri gileem lañ lay laaj ku mel noonu bu demee ba lott ca mënees na koo jox ca zakat boobee juróom-ñaareel bi mooy fii sabilillah al muraad min sabilillah lañu namm ci yoonu yàlla al amalul muusilu ila mardatillah mooy bépp jëf boo xam ni suñ ko toppee day yóbbu ci ngërëmal yàlla wa janaatihi ak ca àddina yàlla ja wa axussuhu al jihaad bi ilaayi kalimati kalimatillahi taala fi sabilillah nag la ca gën a yeyoo mooy ñuy gëñ di jihaad ci yoonu yàlla fa yu'ta al-ghazi fi sabilillah wa in kaana ghaniyan su ko defee kii gëñ dem di jihaad fi sabilillah même bu doon am na alal ci dëkk bi waaye mi ngi bàyyi léppam dem di jihaad ku mel noonu dañ ko war a jox ci zakat bi wa yashmalu hadha sahmu sa'ir al-masalih ash-shar'iyya al-ammati mu ne loolu nag dana ëmb mboole mi loo xam ne njëriñ nekk na ca ci wàllu sharia yu matale ka imaratul masajid lu mel ni dundal jàkk yi tabax leen ca wa binayatul mustashfiyat ak tabax la nga xam ne mooy hôpitaux ya wal madaris mi ngi noonu wal malaji'u lil yatama tabax école ya ak la nga xam ne mooy orphelinat mooy fa ñuy denc jërëm yi gayra ann awala ma yabdau bihi al jihad lu dul lañ cay jëkke mooy jihad min i'daadi silah wa zaat wa rijal wa sair mutatallabat al jihad te mooy zakat boobee ñu préparé ci ay arme entraîné ci ay góor ak lépp lu jihad di yeyoo wal gazwi fi sabilillah ak xeex ci yoonu yàlla loolu kon moom la ñuy wax ci loolu donte ni soo demee même moom ci boppam am na yeneen sharx yu mu def minhajul muslim bi da cay leeral ci ne lii mu la wax ci ne zakat nañ ci tabax jàkka yaa def ci mustasfiyaat mooy ci dëkku yéeféer dëkku yéeféer boo xam ne amuñu jurit yu fa nekk di génne zakat te ñu bëgg faa tasaari lislaam mën nañ faa yóbbu la nga xam ne mooy zakat bi defar ci ay jàkka ak hôpitaux ngir xemmem loo nit ñi ñu dugg ci biir islam te xam ngeen ne lii di diine christianisme tasaaroowul surtout en Afrique loo dul ci yu mel noonu yéen ñëpp yéen dégg kër sër yéen ñëpp yéen ngi dégg dañuy dem ci ay dëkk indi leen ay robinet indi leen ay lampe indi leen ay garab faj leen gratuitement ñu bëri loolu moo tax ba ñu dugg ci ay christianisme amma bu doon dëkkub jullit zakat kenn du ko tabaxee jàkk kenn du ko tabaxi hôpitaux loolee yeneen alal la ñu war a jël def ca jàkka ja ak hôpitaux yi waaye dañ koo war a yemale ci juróom-ñetti ñi yàlla subhanahu wa taala tudd ñu ngi noonu ki mujjoon ci juróom-ñetti ñi suñu borom tudd mooy ki muy tuddee ibnu sabil koo xam ni dafa jóge feneen tumuranke ci réew mi ibnu sabil huwa al musafir al munqati min baladihi al baid mooy aji tukki da nga xam ne dafa dogo ca dëkkam bu sori ba mu jógee fa yu'ta min az-zakat ma yusudd xaajatahu fi xurbatihi ñu jox ko ci zakat luy mën a faj aajoom ci tumuranke boobee nga xam ne da ko tumuranke wa in kaana ganiyan fi bilaadi donte ne ne nekkoon na ko woomle ci dëkk ba mu cosaanoo nazaran lama arada lahu min alfaqri fi xaali safarihi wa inqitaihi ci xool gi ñuy xool la ka gaar ci ñàkk gi nga xam ne dal na ko ci tukkiim ak dagg gam dagg ak waa dëkkam wa hada in lam yujad man yuqriduhu qardan yastainu bihi ala qadaai xaajatihi xaajatihi waaye li lépp nag buñ koy wax mooy gisul ku ko mën a lebal loo xam ne dana ci mën a dimbali ko ba bu demee dëkkam fay fa in wujida man yuqriduhu aw fa in wajada bu dee am na man yuqriduhu wajaba alayhi an yaqtarid su gisee ku ko mën a lebal day dagan day war ci moom mu mu leb wala tuxtaaluhu zakat maadaama ghaniyan fi bilaadihi kenn du ko jox zakat su dee ne dëkk ba mu nekk am na fa alal te kii mu leb mën na koo fay loolu mbokk bu ñu xoolee suñu jamono yi tey moom ibnu sabil day xaw a jafe lool ndax tey ni yàlla defee communication daanaka néew na réew mooy nekk te soit réew mënuñu laa yónnee xaalis loolee moom dana doon lu néew lool kon fii yaa ngi mën a am koo woo kookee yónnee la xaalis tumuranke gi nga tumuranke fii kenn du ko boole ci ibnu sabil am maa nag ba tey danay am mën naa nekk boo xam ne am na lu mu yor sax dëkk ba waaye mooy la ko jëlee foofu indil ko ko fii moom amu ko su boobaa mën a sale na jox la nga xam ne muy zakkat boobee loolu mbokk mooy juróom-ñetti bunt yi doonte ne ni mi ngi la ciy indil ay leeral ay tanbihaat ay leeral ci gannaawam la leeralee lu jëkk leeral bi jëkk law dafa al muslimu maalihi zakata maalihi li ay sinfin min al asnaafi samaniya ajzaa zalik ki nga xam ne dafa yor zakatam juróom-ñetti ñi yàlla wax kum ci jëloon jox ko zakatam loolee da ngay gis ne waru garam wàcc na jaanam wàcc na غيره أنه ينبغي أن يقدم الأهم والأكثر حاجة lu dul heure boo demee bay joxe sa zakat ci juróom-ñetti ñooñu war ngaa xool ka ci gën a ittewoo ka nga xam ne moo gën a yeyoo loolu loolu nag day soppeeku ci dëkk yi di soppeeku ci zaman yi ci temps yi wala tuxtaaluhu zakat maadaama non déedéet mu ne mi ngi noonu wa in kaana maalu zakat kasiran fa wazzaahu ala kulli sinfin mawjud min asamaniya la kaana afdal lu dul ne bu doon zakkaat ya daa doon alal ju bëri nga xool juróom-ñetti bunt yooyu fu ne nga def fa nee na loolu moom mooy la gën waaye boo ko dugaloon ci benn bunt it loolee yow def nga sa waruga ñaareelu mbir bi ci zakkaat laa tudfaw zakaatu ila man tajibu ala almuslim nafaqatuhum zakkaat doo ko jox koo xam ne yaa ko war a dundal kal walidayni wal abna doo ko jox say waajur doo ko jox say doom wa in safaru ak lu ñu sori sori sët yaag doomi sët ya ilaa kenn du la jox zakat wa zawja kenn du ko jox sa soxna li wujubi nafaqatihim alayhi ndax ñii mu lim ñëpp seeni dépense yow la war inda ihtiyaajihim ila nafaqa heure bu ñu soxlaa amoo droit di lekk sa waajur lekkul di solu sa waajur solowul di dëkk sa doom dëkkul wala sa doom lekkul sa doom solowul kon ñii yaa leen war a yor te zakat daa ñëwoon ngir régler problème ñu amul ñu leen taxawu kon ñooñu kenn di leen jox zakat mi ngi noonu donte ne ne jigéen mën na jox borom këram la nga xam ne mooy zakat su dee ne borom kër ga daa doon ko ñàkk waaye góor moom du jox borom soxnaam zakat ñetteelu leeral gi laa tuta zakat di aali nabi sallallahu alayhi wa sallam li sharfihim njabootu yonent bi kenn du leen jox zakat ngir teddaange ba leen yàlla teral wa hum banu haashim wa alu ali ñu ngi noonu ñépp ñu cosaanoo ci ali آل جعفر دوم جعفر آل أقيل آل عباس ñii nga xam ne nii ay doomi bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu woon te tuub àndoon ak moom dugg ci biir lislaam ñu mel nii kenn du leen jox zakat li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna sadaqa la tanbaghi li ali muhammad innama hiya awsaqu nas li nga xam ne mooy zakat day du nekk loo xam ne dafay yey li nga xam ne mooy njabootug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa nekk ci tilimi nit ñi te mooy zakat dafay laabal nit ki laabal alalam loolu kon kenn wuru leen a jox zakat lu dul lenn ci ay borom xam-xam dañu ne ñoom yàlla da leen a jagleel leneen mooy li ñuy tuddee alxums heure bu ñu jihaatee suñu borom mu ne yonent bi moo jël xumusahu di ko jagleel ulil qurba ay jege ñaaleem ak ña ca tegu ñu ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam it luñ jëlee ci jihaad ba buñ jëlee xums ba ña nga xam ne ñooy njabootu yonent bi alayhi dañ leen ca war a jox loolu muy wane ne ñoom cër boobu ñu leen di jox suñ demee ba amatul buñ gisee koo xam ne ñàkk na ca moom mën nañ leen a jox zakat ca dana dagal ñu jël ko ndax la leen yàlla séddoon nit ñi joxatuñ leen ko donte ne ni bokkoon na la gën ci yow mooy yow mi nga xam ne da ngaa gis koo xam ne nii dañ na sutub yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam donte ne lu jafee xam la waaye nag jëfandikool rek la waaja waxoon firaw nak notable am kii nee na yàllaa ko yónni léegi kay bàyyi leen ko su dee day fen fen wi ci moom lay dellu bu dee wax ne dëgg nag li muy wax day dal seen kaw kon ki ñëw mu ne ñu moom sëtub yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam nañ jàpp sëtub yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam luñ ko mën a def ci hadiya ñu may ko mu nekk ay hadiya may ko ko mi ngi noonu loolee lu dul nga am lu la leer ci ne moom kat caam la sant wala saa waaye bu dee yow amoo si den lu la leer ñëw na mu ne kii mu ne ma shérif la ñu ne ah shérif nga ne ah shérif nga su dee day kan la ko cay xaar musiba la yonent bi alei salaam ne ne képp ko wootewee beneen bàyyi bu dul sa bàyyi xamal ne sawara mooy sa wàccuwaay léegi kon ñu bàyyi ci xel bu baax juróom juróomeelu mbir bi naam wala boog kon juróom ñeenteelu mbir bi yujzi al muslim an yadfa zakata maalihi li imaamihi al muslim walaw kaana jairan mu ne dana dagan ci jullit zakaatam moom mu dem jox ko njiitu jullit yi donte ne imaam mooy képp ko jiite ba ca gën a kawe mooy ki jiite réew mi donte ne ni imaamu jullit bu jiite réew mi di ko doxal ci sharia gisuñu ko suñu demoon tey lu dul ci dëkk yu néew néew loolee itamit imaam ba nga xam ne ni mooy nekk ca jàkk yi di jiite yow boo jëlee sa zakkaat nga ne ko lii de zakkaat la nga teg ko ci loxoom su boobaa da ngay gis ne sa jaan wàcc na même bu dee dafa jeng jeng googu ci boppam lay dem moo tax mu ne wa tabarraa bi zalika zimmatahu bu ko jëlee ba teg ko ci loxoom moom responsabilité moom mucc na ca li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi zaka yonente bi daana wax ni ida adaytaha ila rasuli ida ila rasuli faqad barita minha falaka ajruha wa ismuha ala man baddalaha ñii ma yónni ñu dajale zakat képp ci yéen ku jël zakatam teg ko ci seen loxo xamal na yow yàlla teggi na sa responsabilité ñoom ña ko dajale nag luñ ci def ñoo kooku seen mbir la loolee kon it mi ngi noonu bu dee ne yow faqir yi ak masakin yi soo leen xamoon joxal ko sa bopp loolee mooy la gën su dee ni nekkoo di ko ràññee ka nga xamee ne ab imam la wala ka créé ab fond zakatam nga yëkkati ko teg ko ci loxoom leeral ko su boobaa yow sa jaan wàcc na ca loolee bu dee juróomeel bi laa tu'ta zakatu li kaafir wala li fasiq ka taariki salaa zakat kenn du ko jox yéeféer zakat kenn du ko jox yéeféer lu dul yéeféer bi mu la wax sànq koo xam ne jàpp nañu ne suñ ko joxee ci zakat bi dana ko xemmem la mu dugg ci biir lislaam mais bu dee amuñu benn yaakaar ci lii dana ko dugal ci lislaam araam nañu jël zakat di ko ko jox saay-saay bi nga xam ne it dafa biral ak caay-caayam mu joxe ci misaal ku dul julli koo xam ne nee na jullit la ci du julli dàgganul nga koy jox zakat mi nga noonu malheureusement li am sunu Sénégal moom yéen ñëpp yi na ko bokk xam waaye ku dul julli kenn du ko jox zakat ku dul woor kenn du ko jox zakat ku béral bakkaar yu mag yi képp kuy dem di wër di jaay boppam wala di agressé bañ xam ko mu nekk ci ak mbon goo xam ne nii nëbb ko ku mel nii kenn du ko jox zakat wal mustazi bi shara'i l'islam képp koo xam ne dañ koo gis muy soofantal lii di njàngalem lislaam kenn lu ko jox zakat li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam tuqazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim zakat dañ koy jël ca ña woom la ci ñoom julit ña di ko delloo ci ca ñàkk ci ñoom julit ña mooy julit ñi nga xam ne nii yàlla dafa nangu seenum julit ay aghniyaul muslimin wa fuqaraihim te mooy ñi nga xam ne dañoo woom la ci julit ñi ak ña ca ñàkk ñuy jële ca ña woom la di delloo ca ñàkk wala li ganiyin waa ji nga xam ne it dafa woomle na xam ne zakkaat warul mu koy lekk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ki nga xam ne yàlla may na la woomle yow amoo benn problème yaa ngi ak say kër yaa ngi lekk normal yaa ngi naan normal sa la ngay am mën na laa yor zakkaat boobee amoo droit di ko lekk boo ko lekk yaa ngi lekk ak jàmbur wala li qawiyin muktasib du doo nit koo xam ne nii dafa am kattan bu mu mën a liggéeye lu ko yor ki am na pexe yoo xamee ne nii moom mën naa dem liggéey loo xam ne dana régler ay aajo mu toog ba ñu liggéey ku mel noonu da ngay gis zakat waru ci waru ko waruñu ko ko jox li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la xazza fiha li ganiyin wala li qawiyin muktasib zakat bii day ka nga xam ne daa woom la amu ci cër ka nga xam ne it dafa doon ku am kattan gu mën a faggoo amu ci cër yàq ni yaqtasib qadara kifayatihi mooy mën naa faggu la nga xam ne moo ko day juróom benneelu leeral bi laa yajuzu naqlu zakat min baladin ila axar yubaadu bi masafati qasrin fa aksar du yey zakat bi ñu koy tuxal di ko jële ci dëkk yóbbu ci beneen dëkk boo xamee ni yow boo fa doon dem da nga wàññi say julli wala lu ko ëpp li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam turaddu ala fuqaraihim zakat bi nañ ko jël ci ñi am delloo ko ci ñi ñàkk ca ñoom te mooy gox bu nekk ña nga dëkkal ñooñu ñooy gën a yey ci sa zakat wastasna ahlul ilmi ma iza adamal iza adamal fuqara min balad lu dul borom xam-xam yi daan ca dàq léeg-léeg nga nekk ci dëkk boo xam ne gisoo fay faqir lu bari suñ doom yi nekk biir New York biir Moscou biir Canada léeg-léeg fa nga nekk gisoo fa faqir yooyu jox aw kaanat alxaajatu fiihi ashad wala boog fa nga ko jëmi ñoom ñoo ko gën a yeyoo yaa ngi nii Dakar naam yaa ngi dëkk ak ay faqir waaye yaa ngi dégg ne sa mbokk yi nekk Saalum day ren dañoo bay amuñu dara kee moom mu nga neex mbokk yi nekk Fuuta day dañoo lakkale ci seen dëkk ila axiri ñooñee kon nga bàyyi ñi nga dëkkal yónnee leen ko ngir ñoo gën a tar aajo loolu lislaam du bañ loolu fa innahu yajuzu naqlaha ila baladin axar fihi fuqara dana dagan ñu toxal ko yóbbu ci beneen dëkk ba may faqir yafalu zalika al imam aw gayruhu loolu nag imam bi mën na koo def moom mi dajale zakkaatu nit ñi wala keneen ku yor zakkaatu boppam mën na koo defal boppam amma juróom-ñaareel bi man lahu daynun ala faqir fa araada an yajalahu fi zakkaati koo xam ne dafa am bor bu ko faqir yoral mu bëgg a féetale loolu ci zakkaat ku mel noonu day jaaza zalika ida kaana بحيث لو طلبه من الفقير لتكلف وسدده له لولو دنا دغان سوديني faqir bi kat boo taxoon na ko fay bu mu fay la soo yëgee ne am na yeyoon a zakat man ngaa jël la nga ko waroon a jox na ko yoraloon nga ma cinquante mille féecale naa ko ci zakat bi ma la waroon a jox wa amma ida kaana ayisan min sad sadadihi su dee nag da ngaa jàpp ne kii kat moom du ma mën a fay aw ataahu li yuraddahu alayhi wala nga jox ko ne ko pour mu delloo la ko fala yajuzu zalik loolee nekkul loo xam ne luy dagan la doonte ne même bu njëkk bi it borom xam-xam yi dëppoo wuñ ci te mooy ndax nit ki am nga droit ki la yoral bar nga téq ko ci say zakat loolee li mu wax ni am na ñu ko wax waaye am na ñoo xam ne dañ ne déedéet faqir bi moo moom zakatam yow bor la la yoral yow kay da nga jël zakat bi jox ko mi ngi noonu moom nag nga xamal ko ah sëñ yoral nga ma bor waaye amoo droit di ko téq juróom-ñetteel bi mooy kon laa tujzi u zakat illa bi niyatiha zakat du war lu dul yéene da caa ànd falaw dafaaha bi gayri niyati zakat almafruda lamma ajzaatuhu su dee bi ngay joxe zakat bi yéene woo ko loolee du doy benn faqir yi ngi ni ñëw diis la benn problème nga yëkkati cinquante mille jox ko sa xel ne yaral ne ah yow kat sax temps yi war ngaa génne zakat ndax mën ngaa dabantal cinquante mille bële boole ko ci zakat yi dañ naan déedéet amma bu doon te ne nag avant muy ñëw yow yéene ngoonu génn zakat mën na nga ko génne ci zakat bi kon jaamu yàlla gu mën a doon jullee lépp lu mën a doon yéene moo koy jiitu avant ñu koy tenir en compte te mooy ñu koy nangu ñu ngi noonu kon yonent bi alayhi salaam moo ne innama al amalu bi niya def yépp ci yéene la ko yàlla di xoole wa li kulli imri'in ma nawa ku nekk la nga yéene ci jëf ba lool rek nga cay am fa ala dafi'uha an yanwiya biha zakata al mafruda alayhi fi mali loolu tax ba heure boo koy joxe yaa ngi war a yéene maa ngi génne cër ci sama zakat loolee mi ngi noonu nga xam ngeen julli yi ani ko lu bari ci julli yi farata ak naafile yi yéene yi moo leen teqale tisbaar ak takkusaan daanaka ni ñu koy jullee benn la waaye yéene yi moo leen teqale ko ñu dimbali faqiir loolu lu baax la lu am tuyaaba la waaye nag bu dee yéene woo ci woon zakat ah ab sarax ordinaire lañ koy mën a considéré waaye kenn du ko considéré zakat wa an yaqsuda biha wajha allahi taala bala ñu koo nangu it mooy yéene nga ne zakat la te yaa ngi ci namm yàlla gërëm la nammoo ci mukk ngir faqir yi fonk la di la màggal wala kaza wa kaza ngërëmal yàlla doom nga ca sakku isil ixlaasu chartun fi qabuli kulli ibada ndax sellal moom mooy chart ci mboolem jaamu yàlla ngir yàlla nangu ko li qawlihi taala suñu borom nee na wa ma umiru illa li yabudu allaha muxlisina lahu ddin nit ñi day digaluñu leen lu dul nañ jaamu yàlla ca sellalal ko diineem ji kon mbokk lii mooy li yàlla dogaloon ñu jël ko tey ñu ngi ñaan mboolem ñuy génne zakkaat ci ñun yàlla yàlla nangul leen yàlla wërsëgal ñu ñun ñëpp bala ñoo dee bokk ci ñu koy génne wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaye say frère say sœur say nijaay say bàjjen ñoo ñëpp bu dee ay faqir lañu ñu mel noonu da ngay gis ne yeyoo nañ nga jox leen zakat mi ngi noonu allahuma lu dul lañ lay wax kay mooy bul yem ci zakat bi maadaama say jegeñaare lañu dee leen dimbali sa kemtalal kattan ba ñu génn ca ñàkk googee waaye bu dee dañoo ñàkk moom ci yaa ngi génn zakat su boobaa dana dagan moom nga jox ko zakat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah mën nañu nekk ci ah waaw waaw ñi nga xam ne yow yaa ngi nekk la nga xame ne ni moom mooy Guinée yow yaa ngi nekk fii waaw bokk na moom lu mu ci wax mooy soo jàppee ne ñàkk gi Guinée la gën a tare su boobaa da ngay gis ne dagan na nga tuxal zakat bi fii yóbbu ko fa mu gën a tare donte ne itamit bokk na lu ca borom xam-xam yi di wax su dee say jege ñaale sus ci yow tamit dañoo nekk ay faqiir doonte ne sori nañu la ñooñu tamit nga jox leen ci ab cër doonte ne dëkkuñu ak yow loolee da ngay gis ne ñu lislaam gërëm la yonent bi daana wax ne faqiir bi nga jox ndimbal ndimbal la mais bu dee sa jegeñaale day dokk ndimbal dokk nekk jokk mbokk nga xam ngeen ne sa doomi nijaay yi nekk Fuuta wala Casamance dégg ne yow yaa ngi nekk Dakar millionnaire nga loolee da ngay gis ne su dul da nga leen di mën a dimbali toujours la gën a néew boo génnee sa zakat nga am cër boo xam ne da nga leen koy jagleel donte ne sori nañu la tax mooy mbokkoo giñ bokkoog yow te borom bi waxoon wa aati zal qurba xaqahu na nga jox say jegeñaale la nga xam ne mooy seen aq wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam ala kulli xaal fu sunna nekkul moom dañ naan lislaam nekk fa rek parce que lislaam muy sunna kon bu ñu demoon ci benn dëkk boo xam ne tey jii dëkk ba ñu fa nekk ñoom xamuñu ci lislaam dara te amul ay bonne volonté yoo xam ne ñoo war a tabax jàkka ja te loolu it def moom moo waroon a mooy mooy cosaan am bonne volonté yoo xam ne ñoo war a tabax jàkka ja te lu ci bari ci borom xam borom alal yi dañ koy sàggane am na fi ay dëkk yoo xam ne diggante mag Dakar mu jëm sax cent kilomètres mais bu ñu la waxee sàkket yi ñuy jullee dafay yéeme ñu ngi noonu dafay yéeme loolee kon julli ñu war a jël seen xaalis tabax ja am maa nag loolu amul te dëkk bii de xam nañ ni ku fi tabaxoon jàkka jàkka ji da nekk jàkka ji wootu ci yoonu yàlla loolee dañ koy dugal ci sëxmu mooy fi sabilillah ngir jublu ci jàkkay da'wa mais bu dee jàkkay jaamu yàlla kese taxaw julli rek loola moom dañ ko war a def ci tabarruaat yi nga xam ne borom alal yi ñoo koy def amma nag bu dee dañ ciy jublu jàkka da'wa mooy li ñu waxoon sànq ci dëkk Europe yi dëkk Amérique yi ñu ci bëri naar yi fay investir lañ ci jublu mooy da'wa su boobaa da ngay gis ne loolu lu ñuy mën a nangu la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon incha allah kon xam naa ñu doy loo loolu ñaan yal na yàlla barke li ñu fi jot a jàng nangul ñu fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain